Mamadou Ibra Kane maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ndeye Comba. Mamadou Ibra nga nekk euh, njiitu CDEPS di euh, conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal euh, est-ce que mën nga ñëwaat ak ñun ci lettre bi nga xam ne une lettre ouverte bi nga xam ne yéen a ngi ko jëmale ci njiitu réewu Sénégal lettre boobule lan ngeen si dëxëñ exactement. waaw euh, euh, euh, président de la république son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye vendredi bi ñu bi passé muy le cinq juillet dafa recevoir la convention de jeunes reporters du Sénégal CJRS oui si audience boobu mu wax ne par rapport ak crise bi nga xam ne moo am biir presse Sénégal moom Euh, mu ngi déglu ay solution yu ñu ko mën a proposer donc opportunité boobu la ñu jël ne ah président de la république kat may nañu bunt pour ñu proposer ko ay solution ci crise bi nga xam ne moom lay média Sénégal di jànkonteel donc comme dañ ko defaloon ñaari demande d'audience le premier mai deux mille vingt quatre ak le six juin deux mille vingt quatre te amuñu tontu ci audience yooyu te président de la République ne nangu nañu déglu ñu ne kon nañ ko defal lettre ouverte lettre ouverte bu nga xam ne day ànd ak ay solution euh, yu nga xam ne moom la ñu foog ne moom bu ko xoolee euh, mun na am euh, dina mun a trouver saafara ci problème mu presse sénégalaise donc problème bu njëkk bu ñu am mooy dañuy def plaidoyer pour la presse sénégalaise maanaam euh, presse sénégalaise suñu gouvernant yi muy tey Bassirou Diomaye Diakhar Faye muy démb Macky Sall muy barki démb Abdoulaye Wade pour ñu comprendre ne presse dafa am solo ci réew presse euh, moo ñuy garantir suñu démocratie presse moo ñu ñuy garantir suñu stabilité politique et sociale presse moo ñu mën a dimbali suñu développement économique et sociale euh, presse mooy garantir jàmm la paix au Sénégal donc loolu euh, moom mooy presse lu am solo la ci réew te euh, réewu Sénégal dafa am ay secteurs yi nga xam ne daf leen définir comme ay secteurs stratégiques et névralgiques maanaam secteurs yi nga xam ne dafa important pour doxalinu doxalinu Sénégal boo jëlee lu mel ni agriculture bu nga xam ne ñun lépp lu ñu lekk dañ koy importer boo xoolee ceeb bi euh, lu ci ëpp ko dañ koy importer un million de tonnes boo xoolee may bi dañ koy importer un million de tonnes également euh, ak yeneen produit comme agricole par exemple suma doom yi dama leen di faral di wax ne Euh, suñu kaw table bi salade bi ñuy lekk tomate bi mu ngi jógee ba Maroc à trois mille kilomètres alors que ñun euh, mënuñu ba léegi am production agricole bu nga xam ne dina assurer la souveraineté alimentaire donc euh, gouvernement yi fi jiitu yëpp président la république yi fi jiitu yëpp dañu considérer ne euh, donc agriculture secteur stratégique la secteur euh, donc névralgique la la même chose ñu ngi génn jamono yi passé ci tabaski euh, xar yi ñuy produire Sénégal doyul pour ñu mun a célébrer la tabaski dañ koy importer mu jóge euh, jóge Mauritanie jóge Mali jóge Niger donc secteur bu névralgique la secteur élevage ak yeneen ak yeneen ak yeneen en matière de logements sociaux Ndakaaru rek am na déficit de trois cent mille logements et cetera et donc secteur yooyu yëpp ñu ne ay secteur stratégique la ay secteur névralgique la donc état bi mënul euh, bañ a dugal dugal loxoom naka la état bi di dugalee loxoom ci euh, secteur yooyu nga xam ne avenir réew bi daf ci dépendre benn def benn fiscalité spécifique pour secteur yooyu euh, comme ni ma ko waxee agriculture logement social élevage et cetera même tourisme sax bi nga xam ne Euh, dafa am solo si biir réew tourisme sax dafa am sa fiscalité spécifique ñoom du ñu fay TVA euh, yi ñeneen yi di fay ñoom euh, du ñu fay impôt c'est-à-dire impôt sur les sociétés ñoom montant bu ñuy fay ak ñeneen secteur commerciaux yi secteur économique yi ñuy fay donc ñun ñu ne loolu la ñu soxla pour presse presse ñu ne TVA bi par exemple dina ko wàññi euh, ba cinq pour cent wala sax ñu niilal ko euh, keroog boo leen dégloo discours président de la république bu nga xam ne fonctionnaire la nee na euh, fonctionnaire la woon ah nee na boo booy def avis de décès nga war a fay cent mille francs TVA bi ci appliqué da ngay fay mille huit cent francs da nga euh, moom loolu bu ko waxee maanaam euh, un virgule huit pour cent la ñuy fay ci TVA TVA boobu de ñun buñ ko amoon dañuy daw ba fattu parce que TVA Sénégal c'est dix huit pour cent loolu dafay augmenter suñu charge dafay rendre suñu publicité moins attractive par rapport à nos annonceurs donc ñun ñu yaakaar ne am na ay euh, une fiscalité spécifique bu nga xam ne dañ ko war a def pour le secteur de la presse de la même manière euh, Sénégal bu considérer agriculture élevage logement social et cetera comme secteur stratégique daf leen di beral loxo pour euh, crédit ci euh, bancaire euh, taux crédit bancaire bi ñu wàññi bu baax a baax banque commerciale yi tey fii Sénégal bu ñu joxee crédit c'est autour de quatorze pour cent léegi état bi ne déedéet man suma secteur yi nga xam ne ay secteurs yu névralgique la dinaa fexe njëgu xaalis bi njëgu crédit bancaire bi ma wàññil leen ko loolaa tax pour yenn secteurs yi mu def taux bi à cinq pour cent donc euh, loolu dafa am solo ci réew ñun accompagnement boobu la ñu laaj parce que ñun mission de service public la ñuy remplir ñun ñoo def ay alternance ñoo ñoo dimbali Sénégal bu mu am alternance politique dimbali Sénégal bu am un dialogue euh, interreligion ñoo dimbali Sénégal bu mu am jàmm paix ñoo dimbali Sénégal bu ñu xeex ay jàngoro ñu euh, mel ni Ebola wala ñu mel ni te euh, coronavirus le Covid 19 ak leneen ak leneen ak leneen ak leneen bu amul presse. du am gouvernement bu amul presse du am euh, président de la république bu amul presse du am vulgarisation des politique publiques donc ñun suñu mission mission de service public la ñun information la ñuy jaay mais information du n'importe quelle marchandise ñun du ñu jaay jaaykatu caaf du ñu jaaykatu oto dégg nga du ñu def la spéculation donc ñun suñu secteur bi dafa particulier moo tax dañu war a fexe conditions yi nga xam ne euh, moo ñuy permettre ñu bañ a nekk sous la domination des lobbies parce que Sénégal léegi ci biir presse bi am na ay lobby lobby politique lobby religieux lobby économique et même lobby étranger donc ñu fexe am une presse bu nga xam ne day nekk une presse républicaine bu def ñaari alternance wala mener euh, la bataille contre les pandémies, le coronavirus, etc. etc. Euh, donc presse boobu il faut ñu may ko ñu créer ay conditions un écosystème bu nga xam ne dina si mën a développer pour que suñu presse Sénégal rester fondamentalement une presse républicaine une presse libre et indépendante euh, libre et indépendante boobu euh, mooy euh, du ñu inféodé wu à un pouvoir à un régime mais ñu mën a nekk au service du citoyen sénégalais une presse bu nga xam ne kenn du ko mën a corrompre parce que sénégalais yi siy liggéey euh, donc journalistes yi siy liggéey technicien des médias yi siy liggéey euh, dinañ leen fay euh, te payoor bu baax au point que du ñu nangu ay perdem wala du ñu nangu ay corruption donc yooyu yëpp moo tax ñu ne Euh, dañuy ñaan président de la république bu nga xam ne mooy njiitu Sénégal euh, mu am une volonté politique pour dimbali presse bi parce que bu dimbalee presse bi Sénégal la dimbali ñu ne président de la république mbubb yu mu daan sol yi nga xam ne mooy mbubbu opposant politique te euh, benn presse doon doon noot dégg nga mbubb yooyu il faut simmi ko mu sol mbubb homme d'état homme d'État mooy ku nga xam ne du xool intérêt moom mais intérêt réew mi lay xool donc loolu mooy suñu plaidoyer euh, ñu jëmale ko ci son excellence le le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ah. Euh, ñu gis ne aussi Mamadou Ibra Kane yaa ngi wax ni euh, pratiquement euh, entreprise de presse yëpp dañu nekk ci situation financière bu difficile bu métti métti da nga koy dëggal est-ce que entreprise yëpp la walla am na ñoo xam ni laalu leen. ah non non non amul entreprise euh, secteur de la presse bu nga xam ne yégul crise bi am na yenn entreprise yi nga xam ne nag ñu ngi financé wu sur le budget de l'État mooy APS mooy euh, RTS ok mais teewul ñoom seen bopp am na ñu yenn jafe-jafe parce que budget bu ñu du duñ ko am entreprise secteur privé bi nag mooy ñi nga xam ne euh, tey amuñu publicité bu doy parce que amul loi sur la publicité euh, bu ñuy leb xaalis ci ci banques yi ni ñu koy lebee ay taux yu nga xam ne mënul permettre investissement dans le secteur euh, des médias donc jafe-jafe yu bare yooyu moo tax tey euh, entreprise yëpp ñoo jànkonteel ak ay problème au point que ñu am ay arriérés de salaire yu takku euh, ay weer ak weer ñu am ay arriérés au niveau des cotisations sociales maanaam Euh, lu mel ni retraite am na entreprise yu bari nga xam ne dootuñu cotiser pour leur travailleur te loolu vraiment bomb social la nar a indi ëllëg euh, entreprise yu bari amatuñu lu ñu fayee frais médicaux euh, de leurs employés donc loolu mooy na ne vraiment crise bi toll na nga xam ne bu ñu deful ndànk Euh, d' abord euh, dañuy perte ay journalistes ay techniciens de médias de qualité dem uti feneen beneen métier bu nga xam ne dina leen dundal wala beneen place bu nga xam ne dina leen dundal euh, dina tax également lu ñuy wooyee corruption dégg nga mu gën a am doole dans le secteur de la presse te loolu bu amee Sénégal moo ciy perte parce que presse bi au lieu mu défendre intérêt général au lieu que mu défendre intéret citoyen bi ay intérêt privé la nar a défendre donc loolu ñu ñaan yàlla mu bañ a am fii Sénégal parce que boo xoolee réew yi ñu wër réew yi nga xam ne ñoo ñu ëpp alal téeméeri yoon euh, toll nañu si ba si ñaari yoon euh, te PIB Sénégal seen dëkk yooyu te dëkk yooyu amatul jàmmalaatee foofu ñu ngi situation de guerre civile parce que seen presse dafa dem ba perdre son caractère républicain nekk une presse partisane une presse ethniciste une presse qui défend les lobbies y compris les lobbies étrangers dernière question Mamadou Ibra Kane ñu mu mel ni audience bi nga xam ne euh, njiitu réew mi daf ko accordé euh, euh, convention des jeunes reporters du Sénégal neexul yenn patron de presse parce que wax nga ko si njëlbeen dugal ngeen ñaari lettre président dalalu leen après mu daal di dalal seeni employé waa dama bëgg a leeral ñaari mbir ñun ay citoyen la bi Sénégal am na ku ñu ku ñu élire euh, muy le président la république ñun président la république bi ñun ñooy wax ne yow lii nga war a def wala war a def lii moom mooy maître de son agenda muy benn ñaareel bi Euh, audience bi nga xam ne président de la république daf ko accordé la convention des jeunes reporters du Sénégal ñu koy wooye CGRS loolu dañ koy rafetlu parce que CGRS acteur des médias la euh, ñun sax bu ñu sañoon acteur des médias yëpp les président de la république di rencontrer waaw léegi moom ci gis-gisam euh, bu ñu ko mënee te xelal mu rencontré acteurs de médias yëpp dégg nga loolu moo gën ci presse sénégalaise loolu moo gën euh, ci Sénégal euh, parce que concertation ci réew euh, moom mooy doxal réew ah mooy indi jàmm la paix waaw parce que Sénégal yàgg dañuy wax ne c'est un pays de dialogue waaw donc bépp secteur bu nga xam ne président de la République mën na wax ak ñoom vraiment ñun loolu dañ koy rafetlu donc rawatina nag avec euh, les acteurs du secteur de la presse. voilà Mamadou Ibra Kane maa ngi lay remercier bu baax a baax ci tontu bi nga tontu suñuy laaj. maa ngi lay fay Ndeye Comba maa ngi gërëm euh, seen groupe vraiment di contribuer. Hmm. Euh, à la vulgarisation de l'information di contribuer à la stabilité politique et sociale e investissement yu takku yu ngeen def. vraiment euh, pour état bi mun ñu dimbali ñun ñëpp euh, pour ñu mun ko fructifier incha voilà euh, ñuy fàttali ni Mamadou Ibra Kane yow yaa jiite CDEPS di conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal jërëjëf Mamadou Ibra Kane